di ñaan maam borom daaru nooy ni mu yàgg ci loolu te moo bi di nuyu assistance bi fi teew yëpp di nuyu suñu papa Bekaay ak suñu promoteur bi assan waaw di nuyu sponsor bi ma sol bu nga mm-hmm. xamante ni bii moom dafa ñëw yokk mais wàññiwul muy Kandji production borom TDR jàppale ñëpp nag uh-huh. jàppale ñëpp Kandji dundam njëriñ la si réew mi ne ko ñëpp ñaanal mu yàgg ci loolu te macha allah di di di sant Boisson King nga xam ne dafa am ku fa nekk nga xam ne suma xarit la daf jàppale muy Moussa Camara maa ngi koy nuyu moom tamit bu baax a baax a baax di nuyu ñu ma àndal ku si mel ni ku si mel ne Sa Bokkal ku si mel ne Sibor ak suma papa Baara maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ak suma papa Thioune di nuyu waa Kër Massar yëpp. acca wooteel lu yoon. bismillaahi rahmaani rahim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw ma sant yàlla julli seen maa ngi ñaanal sama papa Mor Faram comme nekk gën ko fi mu jugee. amiin ñaanal sama papa. xam nga ne am na lu mu sama carrière. ñaan ko sama Mourinho. ko jaale ak bàmb mhm. ñu ngi ñu toog yëpp ñoom ñoom naar faal makan xam nga di nuyu sama grand xaadim dëkk Tëngéej grand xaadim promoteur di nuyu sama papa Cheikh Kan xam nga di sama ménageur mhm. père Djili Wade ñu bu baax a baax mhm. di nuyu sama papa Bekaay Mbay di nuyu sama papa Assane Ndiaye di sama promoteur bi dafa yàgg day nekk fu ne ñu jël xaalisam ma ko jox daf maa defal lu baax moo tax ma woo ko. macha allah di la nuyu Modou Mbaye. Mm. Mm-hmm. di nuyu bu baax a baax a baax. Cheikh Super jamono kenn xamee ko ñàkk a bañ a yàq sànq daa am lu fi am. non loolu garaaw jarul gis nga non non non signature moom lañ gëstu ko. jërëjëf non nettali xuloo xuloo lay indi. du si wax dafa am loo xamante ne nit ñi xamee ñu ma ko. waaw di jégalu ñu fi toog ñëpp garaaw ñëpp jégal nañu leen. maa ngi jégalu mais loolu saako sama. dégg garaaw loolu amul solo amul yi combat bi combat spécial lañ ko tuddee mais du spécial. parce que grand combat la moom mooy drapeau Pambay borom étincelle couture. waaw jëri damaa bëgg ngeen ñëw taxaw ni loolu yëpp la 11 lay leer yéen ñaar bu la 11 ku ci neex loxo dina leer ku ci ëpp doole dina leer damaa bëgg rek ñu waxtaanee ko. ayca bis bi wàccaay bi fan la noppi ngeen. waaw man bu ko ma dara bay lafañ da bëri. ne ko mooy bu ma feebaroon bay lafañ may bëri si incha allah waaw Modou maa ngay ñaanal bu ko dara dal di ñaanal sa mbokk bu ko dara dal di ñaanal promoteur ko dara dal di ñaanal élément prix delloo yi waa Bambis waa Kaas Kafe ga ak waa Xusna waaw ñëwal rek ñëwal rek waaw waaw waaw waaw dëgg la waaw lu tax ah mais noo noo jàngatee safara bii di jóge si moom ni mu mel nii. non lii fii rek la yem mën na suba kii jaaxaluma moom. fii la yem. non lii fii. si laamu te du ma waat de bul waat de. du ma waat waaw. mais damay ñaan yàlla rek. bu at bi sifflé booy séedee na taxaw loolu rek laa koy wax. lu ma koy eh, wax mais fii ah. <laughs> man man man dama lay wax man. moo lebal a eh, eh, eh, jël leen si yéen noppi leen. moo lebal noppi leen noppi leen rek. moo a nag moo fay la ba huit heures. boo février bu arbitre sifflé kii naa ko tegal lu tànk. tumu ko daan ko. su arbitre sifflé day dellu ginnaaw si kawam laa jëm dama koy kii tapet la su arbitre sifflé day dellu. ay maas gars yi ay bouse daa am kii yàq fit mu wax loolu dama dund dimbale ma si loolu. sama amee fi ma fi sa yoon newu man jaay laa ko man jaay nañ jaay laa. teg ci laa moom laa koy teg mu taw bëri moom moo tax na ko fële. yow dama lay may nga jàpp bouse bi. bii laa lay tegal may nga jàpp ba dëgër. ma dal la génn bu dee amul lu may dal ak yow yow amul lu may bind. numéro ma lay jaay Pape Mayla Brosse. super jamono super jamono ma lay jaay Pape Mayla Brosse laa la booy say dër. yow yow arbitre arbitre sifflé moo la fi bàyyi. yow yow yaa ko fi njëkkee. yaa ko fi njëkkee jamono. jaru ko jaru ko waxtaan leen rek waxtaan leen rek. waxtaan leen rek. non non waxtaan leen rek waxtaan leen yam leen fii. Eh, eh, eh, loolu yëpp duñ fa yegg ñëwal. joxal kay mu wax su fekkee jamono waxal. kii mooy kii mooy Boy Seye.

maam Cheikh Sène jaaykatu yàpp maa ngi koy woo maa ngi woo Adama Sarr Adama Sarr maire Kër Massar uh-huh. Bilal Bilal aussi tamit nekk maire Kër Massar uh-huh. di woo ndongo bu Sibor uh-huh. di woo Binet borom Aliya Couture di woo Fandi borom Tana Boutique di woo maire Dieynaba Ndiaye di woo Serigne Djili Mbacké responsable politique APR di woo Toumani Diallo grand papa grand pate Zekin di woo suma suma xarit yu may àndal yëpp surtout élément baay daaru yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp kuy def rouge noir derbi ak traite bi maa ngi lay woo si combat bi Modou di nuyu suma papa booy Kayre di ko ñaanal gudd kon ak wér man suma père di wax nag moo jën Kayre na ko gars yi jël mu bëre man jën Kayre man sax damay bëre ak moom maa indi boy sey mu daan ko nekk champion daan ñëpp ba pare di toog mu am na ko gars yi jël mu bëre waaye tàccu leen loolu waaye rafet na macha allah di nuyu sa bokkal di nuyu Sibor di nuyu Kaaw suma xarit di nuyu suma yaay Mintu Gueye sama papa Tafa Diallo. sa bokkal ci samay mbër la bokkal. Khadija Diarra Fall maa ngi leen di nuyu. di nuyu Manu di nuyu Seexu di nuyu Samb di nuyu El Hadj di nuyu waa Kousna yëpp. alaaj soo doy na waayaw combat la di woo waa Daaru Musi ak waa Kër Masar yëpp makkati Kër Masar bi. baax na temps bi arrêté waayaw waaw maa leen onze maa ngi woo ñëpp. waaw doy na waayaw joxal ba dem boy. jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul rendez-vous la 11 février. ba taxawal. ayca woote di wax jërëjëf yàlla suñu borom. di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk si loolu hôpital yi yàlla yëkkati leen. ñu nekk si kaso yi maa leen ñaanal yàlla génne leen. waa euh, waa camp pénal xam nga. ñu nekk si kaso yi yëpp suma ma limee damay jur. di nuyu sama papa bi ma àndal Pape Ndiaye. et eh, faytal rab préparé la. di nuyu sama papa Pape Ndiaye daf may jàppale si tous les côtés. sama mag góoti maa ngi koy nuyu. xam nga sama rakk Pape Malick. xam nga sama mag sama xarit. Djili Wade xam nga di nuyu ñëpp di nuyu aussi sama ménageur di woo autorités yi nekk Géejawaay di leen wax nañ ñëw jàppale ñu man doomu Géejawaay laa actuellement jël nañ dix bloc jël nañ dix bloc dañu bëgg a jinaar yeneen dix bloc dañu bëgg ñun ñun suñu jëmu bopp ñun suñu jëmu bopp Géejawaay lañ dëkk dañu bëgg ëpp fa booloo si kattanu yàlla suñu borom di woo suñu papa la Diop gis nañ ñu nga jëlee suñu Géejawaay yi jàppale leen ñoom ñëpp utal leen liggéey di woo aussi sama papa Malick Gako di jël nuyoo bi di ko teg si loxo guy gi ak suma grand ambulance Père Malick Gakou maa ngi lay woo soxla ma xaalis ay billet kese kese eh, kese laa soxla ah, damay dégg di woo waa Sandaga bu nekk Sandaga ñu ngi woo si combat bi di woo Youssoufa Touré la la lumière du Sénégal di woo eh, Sara doomu ndey Balla Gaye dé waa Algayda diggante ñëpp maa di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Mor Diouf damay dégg di nuyu waa maa ngi nuyu maa ngi nuyu waa diaspora bi di jël nuyoo bi di ko sama papa président di nuyu sama papa buuba sama tata um ama di di nuyu aussi baylaat maa ngi leen di woo ah, baylaat baylaat seen suñu waru jong di woo sama papa eh, eh, ibu jong a eh, jong gars yi ñu may woo nii utuma xaalis utuma dara ah, dama bëgg a mobiliser kese moo tax maa woo laxat di woo di woo di woo bilet bilet maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si géej di woo waa Kër Masar. merci xam nga di woo si sama rakk di woo sama nijaay yi di nuyu sama nijaay yi bàyyi ma kenn. bàyyi bàyyi bàyyi loxo jàmbur bàyyi loxo jàmbur am na ñoom di nuyu sama yaay bu baax a baax a baax di sama sama maam. eh booy yow eh booy yow sooy ma waay yow tamit maa ngi jégalu kenn. maa ngi woo Ibrahima Ibrahima Ndiaye ah saa boo xam Ibrahima Ndiaye jaay ko téléphone ah. daf may jox kóol. waaw da lay jox kóol. ok Ibrahima Ndiaye. maa ngi woo Ibrahima Ndiaye jaagatu kóol. Ibrahima Ndiaye wu ñu fii kóol bi da ñëw. wéy nga fii wéy nga ci eh, eh, eh, ñoom ñaar ñëpp.